c'est quoi Mauvaise nouvelle, Sadio Mane va démarrer sur le banc aujourd'hui. Diggante Bayern de à Manchester City, Sadio Mane qui revient de suspension. Sadio Mane nak dafa jugé ci daan bu ñu ko daan match pour man waaw ñepp bëgg nañ mu jouer et tout mais ci dit donc Thomas Tuchel dans sa tête c'était un peu logique mais d'abord il y a un donc prix Marc Vivien Foué Award donc ki nga a un donc Habib Diallo moy le seul Sénégalais présent donc ci ñi ñu nominé ñu ko comme ça ce sera une première Nous hein, ñu daal di gagné trophée bobu non surtout avec Habib euh, Diallo li nga également yi ki ngeen gis nia ah donc kii nii di Carvajal Carvajal daal gars yi nee na ñaari image la am ñaari visage la am Carvajal bu Ligue des champions ak Carvajal bu championnat nee nañ Ligue des champions moom li muy wane amul kenn ku koy wane ci arrière latéral Carvajal Ligue des champions day mel ne gars yi kuñ ne tey gay dee day def match yu am solo ki nga xam ne également Leao aussi également gars yi plébiscité Leao fimni mu ne nii nañ awiyé ah nañ fimni mu ne il est excellent amna club yo xam mom bëggu ñu sax mu prolonger fimni mu du côté du Milan AC mais mom il a donné son accord de principe mais Javier Tebas d'al gars nartamay dara li nga xam ne donc wa Barça Javier Tebas le président de la Liga tay jàkkaarloo na ak nga xam donc président club yépp fofu non ci Liga ak aussi kii ni Laporta néna na nag moom moom Laporta ñëw na fii wax na li muy wax et tout donc joxe na ay détails am mais ñun daal gars yi ku nekk nag jox na ko cër ci li mu wax mais teewul l'enquête bi day daal di euh, wëy loolu nañ si dellu ci kanam mais aussi wax na ci Lionel Messi la Pulga aujourd'hui xam ngeen ne Lionel Messi bu ñëwee ca euh, Espagne Inter Barça mais également Inter Espagne la xamee tabas nag nee na gars yi balaa ñoo wax waxu Messi nañ lijjanti ñoom seen problème yi ñu am ba pare ak aussi jeunes joueurs yi ñu war a inscrire ki nga xam ne aussi nag mooy euh, Real de Madrid Real de Madrid actuellement club yi ëpp joue ñu demi-finale Ligue des Champions Real moo ci kaw top ci Bayern top ci Barça top ci Milan top ci Manchester United donc Real Madrid gars yi ci club yi gëna constant ci li nga xam Ligue des Champions ki nak Christophe Dugarry mi ngi Christophe Dugarry moom temps il a descendu ñi nga xam ne mooy dirigeant yu Paris Saint-Germain amul lu mu leen yàqul lekk na lu mel xeme et tout Fini ne nag nee na moom Galtier moom na fa jóge nee na Galtier moom gàcce la bu fekkee ne Paris Saint-Germain jërewuñ ko fa mooy bëgguñu dara mais aussi ki nga xam ne nag mooy donc booy bi ngeen gis ni ah booy bi man moom pour man mooy sama coup cœur parce que booy bi Nuno Mendes dafa nekk joueur excellent actuellement club yu bëri fini. ne ñu ko bëgg récupérer ci Paris Saint-Germain il est courtisé par certains clubs mais contrat bi mu prolongé moo xaw a indi problème mais le Paris Saint-Germain ñoom daal Sénégal dans une duñ boy mais boy aussi il veut gagner et grandir qui n'a dit qu'elle est également que gardien pour Liverpool monde dafa bëgg durer Liverpool parce qu'actuellement actuellement de façon le temps de jeu beaucoup conséquent moi dans Liverpool je ngi gardien parce que mon milieu dafa bëgg daal jouer Luis Enrique sollicité par beaucoup de nationales, hein. actuellement équipe nationale yu bëri ñu sollicité Luis Enrique mais également il reste aux aguets parce que am club il aussi ñu ngi Paris Saint-Germain mi ngi option parce que mon ñu ngi Chelsea mais demul ak aussi des clubs qui sont en Liga qui nag nga xamné également Rodrigo Rodrigo nak nee na di euh, Carlo Ancelotti da ko daal di ko ko ci ñaari but yi mu euh, donc mo ngoog ah nee carrément nek na waa xamné chaque fois bu dougalé da koy defal bise won ko ne kontaan na ci moom Alexander Seferin moom nak mi nga xaar rapport bu Negreira parce que fii le 12 juin la wara a xam joueur équipe yëpp yi nga xam ne ñoo war jouer ci compétition européenne de won et fii le 12 juin bu fekkee né rapport bi génnul Barça day bok bu fekkee nag rapport bi dafa génn incriminer Barça Barça bu may moytul bok Ligue des Champions ta ki di Seferin loolu rek la yakamti aussi Gaï, Megini, 11 de départ donc au 2, di waa Bayern Dominique euh, Megini, donc 11 de départ Bon, choupo meeting va retrouver le poste de numéro 9 Leroy Sané lañ à droite Nyabri, Nekuti ci Monek à gauche donc à la place de Sadio Mané Cancelo moi je tey Alphonso Davies lañu teg ci Bambi. bi ñi des Sadio Mané donc Sadio Mané qui va démarrer sur le banc ak ñi nga donc moy équipe bi donc di Bayern Munich Sadio Mané bien présent mais Sadio Mané qui va démarrer donc ci banc bi lay tok début match bi dañuy ñaan Yalla gars yi lu mënti am rek man Yalla na Sadio dugg jouer dugg jouer dugal yalla Sadio dugg joué dugal yalla Sadio dugg joué dugal waaw bu defee lolu dañuy ça. début la nak mais aussi comme on dit buñu ñu aussi ñun comme je dis ci wax ji on sent qui quoi mais buñu délo championnat on am temps de jeu lolu lañ bëgg Sadio Mané bo xamné amna yo ci wax ay non sanction ñu wax ak rek du sanction bi prix somme bi ñuy wax ak li am du dëgg Sadio nag dina am beneen analyse boo xam ne wala boo dina am benn exclusivité bu leen jox si yenn ne di ngeen ko xam boo xam ne ñu waxtaan ci ngeen joxe seen xalaat gars yi c'est ce que je voulais vous dire on reste focus si Sadio Mané yenn yi bu ñun bàyyi ñu ñuy distraire di wax yenn yi objectif mooy Sadio Mané retrouver donc lépp luy onde négative nañ ko jéem a teggi tegu na ne ndax dañ ko war a encourager ba ñu dugg si ay détails yoo xam tubaab bi dañ si bëgg a dugal